chers collègues. La parole est à notre collègue Waressar. Ça nous donne le suivant. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Président Diam. Monsieur le Ministre, dama wax ni dépense bu doyee boroom kër yi seen xel day dal waaye nag bu dépense doyee te fa war a dem demu fa ba yegg ci njaboot gi seen fit danaan tërët na am suivi ñu xam ndax li ngeen natt yegg na wala yeggu c'est très important monsieur le ministre je vais vous poser des questions sur la jeunesse les immigrants de notre pays lu ngeen ci xalaat tombe nag moo waral ay gaaf donc il faut xalaat xale yi dem il faut ñu jël ci ay mesures yoo xam ne wax dëgg yàlla suñu doom yi dañ des suñu kër ma dama naan est-ce que ñun bu ñu doon attaqué ban jeunesse moo ñuy moo ñuy jàppale monsieur le ministre ma wax ne le panier de la ménagère wax dëgg yàlla yëguñu ko wax dëgg yàlla dund bi seer na ceeb bi seer na dëwlin ci seer na tamaat fii xam nga lu fi yomb kaay ma wax la képp moo fi yomb leneen yomb fi nga jël ci kii ma waxit nag les observateurs de pêche ne nañ deseen ngeen leen naa ko ci rapport bi pour nga taxaw ci pour ñu jot ma waxee nag éducation à à éducation à distance xale yi dégg naa ñu ne ñoom arrangé wu leen waxoon naa ko maa nga koy waxaat aussi ma wax nag ñi nga xam ne ci manifestation yi passé dañoo ñàkk seen alal yan mesure la ci ndax lu lupp yaay lax-lax ca la doom jay doog lan ngeen ci xalaat ma wax nag l'homme sérieux plein d'expérience travailleur connu par tout le monde du Sénégal et de la diaspora l'homme de Qatar c'est le futur président Karim may Wade xale bu yar boobu kenn dégg ko ci dara kenn dégg ko ci dara kenn déggul baayam ci dara moom kenn du ko waar du ma ñàkk nag remercier le président Macky Sall d'avoir renoncé à son troisième mandat ndax moonu may jàmm ma wax ne monsieur le ministre damaa jaaxle nag xaw ma damay nelaw xaw ma damay gént xaw ma damaa nekkatu Sénégal waa Macky Sall milliards yi muy wax rek nit ñi seen bopp yi toj ñëndëx ñëndëx fan lay jóge moo ma jaaxal man mille milliards huit cent milliards sept cent milliards Macky maam laay posé question bi ne ko war a saar xam naa dina ma dégg xaalis bi muy wax fu mu ko jëlee ak fu mu jëm yàlla bu mel nag ne xaalisu Mimi Touré bi mu waxoon fii ne récupéré nañ deux milliards ba ma ne ko quels sont ces gens qui sont remboursés ces milliards les Sénégalais en avaient besoin moo ma jaaxal monsieur le ministre xam nañ ne liggéey liggéeykat nga bu baax yow di la gërëm di la sant di gërëm aussi le chargé des institutions parce que yow doo politicien kenn du la attaqué technicien nga macha allah macha allah yal na la yàlla lafal cat yaa ñi nga àndal li ma lay wax xale bës buur ca gànjool di émir ca Qatar bu ñëwee yéen du ngeen dem toog leen rek na ngeen tranquille waaye ñii nekk fii di waye waya il faut li ma gën a jaaxal encore daa mel ni Amadou Ba du candidat bilaa Macky Sall képp lañ fiy wax def na nii effectivement def na waaye xanaa ku am candidat war koo woon àddina àddina di la dégg àddina di la seet xanaa war nga ne Amadou Ba def na nii def na nii def na nii waaye on parle même pas de Ba Amadou Ba incha allah laa ilaaha illallaah tëbleen fekk na soccet jatu yéen laay waxal Amadou Ba foo mu ne moom bu amee xel war naa xam ne mu ngi ci dut ndax ñi ko war a jàppale kenn du ko tudd ki def na lii ki jaar na fii mag ki def na lii Macky aw na fii kenn du tudd Amadou Ba wax leen de mooy seen candidat ngeen man de su ma doon su bokkoon benn bokk benn bokk yaakaar yow laay jël ndax liñ la gërëm gërëmuñ gi ko gërëm ak Sall gërëmuñ ko Amadou Ba monsieur le ministre waxoon naa fii sous préfecture yi nga xam ne dañ leen a loué wax leen ci dafa metti nag sous préfecture yi géejawaay dafa metti géejawaay waxoon naa la ndox mi ne la danoo tiim mbaa du man ma fa nekk ngeen bëgg ndox mi yóbbu ma waaye da yóbbaale ñeneen wax leen ci demal nga seet ko seet leen ko mu monsieur le président maa ngi lay nuyu nag jóoba ju ba waalo waalo bu yaru bi borom ree bi ni ma kang ree jeex na lii laa bëggoon kilifa day ree may féliciter nag son excellence le président Abdoulaye Wade l'homme des l'homme de l'homme des chantiers grand théâtre Karim Wade waaw ci ñun la ko jël li ngeen jël yëpp da ngeen di copier coller noo àndoon ci suñu biir ngeen xam ni ñu ba mu jeex daal di ne wasa wàccinu c'est normal Macky suñu doom la suñu xarit la suñu càmm la danoo bokk vision rek waaye ñu ngi koy féliciter li mu def yëpp ci ñun la ko jël yow bu ma daggati nag waaye yow lu tax nga di ma dagg nag yow Merci, euh, honorable Waressar. La parole est à notre collègue Sanou John pour cinq minutes. Asungay, la suivante. Bonjour, euh, chers collègues, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre de, de, de l'économie, Monsieur le ministre du Travail, maa ngi lay nuyu ak say Monsieur le ministre balaa may entamer suma intervention pour rek appuyer un des collègues qui se trouve être un grand monsieur parmi nous te boroom xam-xam bu waxee rek boroom xam-xam da koy fonk muy le docteur Omar Cissé. dama bëgg rek di mu wax xam naa ne yàlla may na leen ay cadre yoo xam ne plaidoyer bi mu def fii ngeen jël ko en compte parce que xam naa ni il est au-delà des considérations politique donc euh, li may ñaan rek mooy ñu jël ces préoccupations en charge je n'en doute pas beneen bi mooy monsieur le ministre Dans le secteur de la protection sociale, nous avons deux problématiques stratégiques. La coordination du secteur et le financement durable. Monsieur le ministre, la coordination de la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, dépendant du ministère du développement communautaire, a du mal à coordonner les autres ministères qui sont d'égale dignité. Le caractère multisectoriel dans la protection sociale impose ce besoin de coordination pour plus d'efficience. Quand, dans la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, il était au niveau de la présidence et on considérait que ça marchait bien. Donc, il nous faut un ancrage supraministériel qui dépendra de la primature ou des finances pour assurer une bonne coordination. En ce moment, les programmes opérationnels peuvent rester dans le ministère du Développement communautaire, mais il n'y a que la fonction coordination et régulation qui serait délocalisée. Quant au financement, Monsieur le ministre, une allocation suffisante et une sécurisation des ressources est obligatoire pour l'atteinte d'une PSU qui est à notre portée vu les résultats et programmes en cours. Pour ce faire, Monsieur le ministre, il faudrait donner à la CAPSU la caisse de, de la caisse de protection sociale universelle, qui devrait centraliser toutes les ressources destinées à la protection sociale. Ainsi, le PS ne sera pas considéré comme une variable d'ajustement budgétaire là où on opère les coupes, mais permettrait un meilleur suivi et contrôle budgétaire ainsi qu'une meilleure redevabilité au niveau des résultats. Enfin, la protection sociale donne corps à l'axe 2 du PSE et il est prouvé maintenant qu'elle n'est pas une dépense mais un investissement avec des retours sur la pauvreté, la ré réduction des inégalités et la croissance des revenus. Le, le mécanisme financier, qui est la CAPSU, pouvant être logé même au niveau du ministère des Finances. Monsieur le ministre, si on prend en référence l'année 2020, la classification fonctionnelle du budget était aux environs de 220 milliards, si je ne me trompe pas, soit, des dépenses publiques et moins de 3% du PIB. Ma préoccupation, Monsieur le ministre, c'est d'aller au financement de la protection sociale. Comme je l'ai souvent dit, Monsieur le ministre, vous faites beaucoup d'efforts par rapport à la protection sociale, mais malheureusement, qui est beaucoup éclaté au niveau des départements ministériels. Pour pouvoir les craquer, ça pose énormément de problèmes. Raison pour laquelle, dans ce financement, peut-être qu'il va tourner autour de 220 milliards, On aurait pensé, Monsieur le ministre, dans la recherche de ces financements, penser à des solutions. Par exemple, moi je rêve, en tout cas, je, je rêve de la presse sociale comme on le vit en France, comme on l'a vu en France. Les vignettes vertes, Monsieur le ministre, il faut qu'on arrive à des vignettes vertes. Ça va, ça va, ça va amoindrir le budget de la santé. Les gens sont malades à cause de la pollution. Les gens sont malades à, à travers un cadre de vie. je pense que si on instaurait une vignette verte, ça, ça serait des, des, recettes supplémentaires. Monsieur le ministre, il faut digit, digit, digitaliser les contraventions routières. Ça rapporte plus de 700 millions d'euros à la France. Pour wax ko ci olof monsieur le xam nañ ni fi contravention kayit gars yi du ñu fay il faut que ñu digitaliser ko kenn waratul yor kayit des contravention que ministère des finances contrôler ko parce que ñëpp beneen bi la taxe parafiscale sur le taba beneen bi la la la taxe d'habitation monsieur le ministre gars ñi dañuy tax sama classe dañoo tax benn immeuble di ko loué kenn du fay il faut un une taxe d'habitation pour le promoteurs yi nga xam ne ñooy loué kër yi. beneen bi la carte de résident. monsieur le ministre dañu dafa carte de résident. képp étranger bu ñëw fii ngay fay carte de résident ay recette la. vraiment je m'excuse. je vous en prie. vraiment c'était trop. merci. Merci, cher collègue. La parole est à notre